ay kàddu cant cant yoo xam ne cant bu yaatu lay doon tàmbale ko ci euh, commandement territorial bi eh, ak monsieur le maire nga xamante ne aussi def na ci liggéey bu bu am solo euh, Serigne Modou mi ngi ni taxaw parti bi kenn desut góor jigéen mag ndaw xale yi ñëpp dikk nañu ñëpp ñu dajaloo fii def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la àndandoo ko nekk benn ba tax ñu man a réussir li nga xam ne moom lañu fi def eh, ànd ko aussi ak transporteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo ñoom ñoom woote woon kon muy loo xamante ne bii lu am solo la loolu nag buñ ko réussir nii aussi ci Touba warut a bett kenn ndax fi kenn ku ne xam na ne eh, alxames ju nekk nit ñi dañuy génn spontanément di eh, di bale dëkk bi loolu nag ci ndigalu xam général des mourides lañ koy def kon foog naa ne cant gi la ci jiitu moom moo moom ki nga xam ne moo ko fi teewal aussi di sëriñ Xaadim eh, mi ngi foon ci mi ngi foon ak ñun donc ci ci suba ba léegi kon foog naa ne bu ñu amee ndigalu sëriñ bi am jàppale président la république foog naa lu ñu bëgg ci ak cet ci réew mi danañ ko am te foog naa tubaa gii lay départ na waa tubaa ñoom ñu ngi ci woon démb euh, tey soog a ñëw te ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi euh, ñoom ñëpp taxaw nañu wane seen pas-pas wane seen volonté wane seen takku ak seen en tout cas ànd ci li nga xamante ni moom la président bëgg ngir li nga xam ne moom la bëgg ci réew mi muy zéro déchet bi incha allah ñu réussir ko te Touba gii lay tàmbalee ndax ñoom ñu ngi ci woon kon buñ ci jàppee sëriñ mi joxe ndigal président jàpp ci foog naan loolu danañ ko am te su boobaa Sénégal gépp aussi foog naan danañ ci roy ndax Touba royukaay euh, la la la la war a nekk. beneen bi tam <clears throat> moo di ñuy profité ci aussi gannaaw bu ñu sant président aussi di wane également suñu engagement loolu dama ko wax ci tur ci mboolem turu parti bi yëpp ci dëkk bi ñu ngi fi wetam. ngir jàppale ko pour réussir maanaam yi nga xamante ne bii moom la tàmbali ndax dañu ànd ak moom dem campagne suñu borom dimbali ñu mu gagné kon aussi dañu war a taxaw ci wetam nag. nekk ay bouclier nekk ay sentinelle pour que li nga xamante ne bii moom la yéene réew moom la jigi ak réew mi ñu bañ a nangu kenn di ko xajamal kenn di ko yàq ba li bëgg liggéey mu mën ko liggéey moo tax ci mboolem décision yi nga xam ne moom lay jël mboolem taxaw bi nga xam am na ko ci réew mi na xam ne ñun fii moom ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci wetam te loolu dama koy wax ci sama tur di ko wax ci tur mboolem yëpp ñoom ñëpp ñu ngi seen laata ngi ni sëñ Modou kenn desut kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm encore une fois aussi la presse ci seen mobilisation ci seen taxawaay bu rafet parce que lii aussi da ngeen am cër ndax lii du affaire politique kenn moomu ko réew mi ñoo ko bokk te yéen ci réew mi ngeen bokk kon nag am ngeen ci cër parce que travail de sensibilisation de laaj kon loolu aussi yéen na ngeen ko xam bu ñu waxee préfet boo waxee léegi changement de comportement nit ñi aussi am na ñoo soppi seen jikko foog daal presse bi amul lu ko gën a nekk relais pour mën a jam nit ñi ci seen i xol ba ñu soppi aw toogin ci yenn anam yi ba gën a jëkkandiku kon aussi ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous aussi le mois prochain incha Thank you.